Si vous avez vu la vidéo, vous avez vu la chaîne Nourda et TV. Vous pouvez vu la vidéo, vous avez vu la Bonne vous avez vu la cloche. Nour NITIVI, le reflet des valeurs et cultures du mouridisme. الجود القديم وعلى خلوتنا العظيم مام شيخ إبراهيم فال باب المريدين بركب شيخ عبد الكريم بكر فدلو نيغي سانت يالا bu baax di ko joyal moom sunu boroom mbooleem xeeti cant yi ngir moo ko yeyoo di julli ci sayyiduna muhammad sangub sang yi waaye noo ngi feddliwaat sunu kóoluteef ci Amadou Bamba maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi balu xaq mboole mbokk yi di len bal di ñaan yalla sa borom mbolé nu jéggal ñu ngi ñaanal cheikh mohammedul muntaha yalla sa borom yagal ko fi lol te mu ak akub wér donc koy ñaanal serigne cheikh jëmb fall waye ak mbolé kuy sol sa dal te l'islam taxla ñu ñi ngi nuyu di ziyaara di ñaanal yàlla sunu wasila Cheikh Abdou Karim Mbacké Fadilou mi nga xam ni ñëwata lii ak njabootam lanu ñaan yàlla sama borom yàggal ab taxawaayam yàlla yàlla wéral ko yéene yi mu yéene yépp yàlla na ko yàggale ci barki El Hadj Fallou Mbacké moom lu rafet rek la yéene lu baax rek la xam moom Sëñ Abdou Karim ñu nuyu mbooleem waa kër sëriñ Touba yi fi ne kër gi nga xam ni këru borom Touba la ñoo ngi nuyu ñi ko jiite di ko taxawu. ki nga xamni ni lan nu wax ni nanu ko waxtane ku ko waxtane jangale ak murit moy mam Cheikh Ibrahima Fall ndax moo waxon ni murit murit Ibra Fall am ko ko ma sa rombu niro ab murit lol mu woo ko mu ñew mu ni ko adom da nga niro murit ana fo bawo mu ni ko keur señ diiw wax ko kenn ci njabootu borom Touba gi ca mag ña ni ko sama wasila mu niko ko waaw waaye Murid-murid Ibra Fall murid murid Ibra Fall kon kooku kuy seetu murid ci moom nga war a dëppe ci moom nga war a yam moo jàngale ak talibé mas wax ni addoom maa xamle woon naka la ba ñëpp xam naka la te su doxoon ba daje kub dawkat mu ni ci la bokk dinaa ko xamal naka daan ne ah ku am na ma gërëm ku ñàkk na ma xaram day wax ni lépp mën a doom daal ci teg ne ah doom yow mal xiyaam sax de soppi ku la fa ñëpp baaxoo waaye man Ibrahima Fall seen moom mi ni ma mel fii laay mel foofa ku ma ne yow ma ni la mën a kooka moo wane na la ñuy toppee boroom Touba yoon wi sosu na ba at ba at mi dellusi weer wi dellusi ca déwén maam Cheikh Ibra Fall door ñëw sëñ bi sos na yoon wi ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru koor ba koor ga delsi ba am ñeenti fan di bisu àjjuma maam Cheikh Ibra Fall door a ñëw Mbàkke Kajoor la mu wax ak sëñ bi sëñ bi ci moom la ko njëkk a déggee ci wax ku yegg ci yàlla te man maa yeggale la ko wax moom laay seet wax na ni Cheikh Cheikh Amadou Bamba da koo wax ni yàlla moomu ngay wax ni moom ngay seet kat bu nu ko gisoon mbaa nu xam fu mu ne doon fekk wax nañ maam Cheikh Fall ni ko ah waruñu ko ci ak réer de tànkam bi lan topp ba mu tàbbi ci sa biir kër gi boo nu wanee fu mu génnee ñu jàll yàlla la ñuy seet wanañ sëñ bi mel ni lu ko dënniirlu maam Cheikh Fall ni ko bu ma la fekkul woon sax kon maam Cheikh Fall xam nañ li muy seet ci kii la ne su ma la fi fekkul woon te fekk fi sa xabru dinaa fi sax ba am ngërëmu yàlla taxawal yoon bi bi mel ni ku daanub jël wax na ni ba mu yàgg mu ni ko gees ni ko maag yow de danoo niroo pas-pas ndax man Muhammadu Rasulullah su ma fekkuloon benn jeexital te xam ni jant bii moo ko daan tiim weer weeg biddiw yii la daa rombanteel danaa sax ba am li mas bëgg ci moom waaye ndongo li li nga bëgg ku ko bëgg du am ci àdduna bi lu toll ni cunkóoru kawar Cheikh Ibra Fall ni ko bëgguma fepp suuf wax na ni mu ni dënn ba yàgg ni ko gees ni ko kon loo fi amul ci yow la mu ni ko lu ma fi ñàkk yaa ma ko yéenewul wax nañ ni mu sànni ko xepp ak daba akub baag ci lim nettali boppam moom sëñ Bara Diène moom maam Cheikh Ibra Fall mooy nee na treize personnes yi ma fekk ci sëñ bi dama leen a fekk ñuy ay ayloo ci sëñ bi ku ay ci moom ci moom ngay xéewloo bëccëg ci ngay xéewloo guddi bu jant bi soowee ba mu tàbbi ci biir néeg bi nga tàbbi ci biir néeg bi bokk ak moom néeg bi muy jaamu yàlla nga koy xambal loolu la netti suñ baara jenn bu ko suñ baara jenn mosaan nuyu daan Momadou Lamine jenn sama taaw ndax xam nga ni am na ci taaw yi maam Cheikh Ibra yi koo xam ni sëriñ Touba moo yónnee maam Cheikh Ibra kaamil Kamil cane ko ko ni ko na ko jox Mohamadou Lamine jenn moom suñu isaa sëñ baare jenn moomu nag da daan da daan jotaay ak sëñ Tuubaa lu bari damay faral sax souvent waa kër sëñ naar jenn yi léeg-léeg ma waxtaanal leen ni leen sëñ naar produit borom tubaa la ndax sëñ Issa Diène wajul won domam jël domi Cheikh ibrahim Fall Cheikh ibrahim Fall wajul won jël domam jox domi sëñ Issa Cheikh Ahmadou Bamba mo wax ni nañ jël soxna Soda Fall jox ko Bara mu kon kaca feñ produit borom tuma la sëñ Bara moomu nak daay mu doon jege mam Cheikh Ibra ba bu ko jegee muy waxtaan ak mom dajak gi mu dajeeg sëñ Adama ak dab galen Matar Touré dab ak yépp net na ko Bara waaye maam Cheikh Rafaal wax ko ni fukki nit ak ñett laa fa fekk ñu koy ay ayloo kuñ ni yaa ay tey ci moom ngay xéwloo bu bëccëgee ci moom ngay xewloo bu guddee ci néeg bi ngay fanaan nee na bi loolu di dox di dox bañ ni ma yaa aye ci la aye jeex kon moo jàngale lépp moo njëkk a bëkk néegu borom waa moo ko njëkk a wax baatu sëñ Bamba sëñ Bamba sëriñ ben ko njëkk dégg ci maam Cheikh Ibrahima Fall ci mo ci ñu mom Cheikh rafal la baatu sëñ Bamba njëkk gënne Ahmadou Bamba sall lañ ko daan wax diko sallalu diko Ahmadou Bamba direct mam Cheikh rafal ko njëkk wax sëñ Bamba wax nañ ni bis biñ ko né ya aye aña ko fa fekk ñu défar xéewal gi andil ko sëriñ bi sëñ bi raxas loxom ba jublu ndabli niko bismillah puus ko raxasu mi maam Cheikh Rafal naan ko mu waxee ak moom ni ko yow la nuy nekk maam Cheikh Rafal ni ko ah bokk ak yow ndab di lekk mel na ci ñun ni suñu boroom wàccoon fii nu bokk ak moom ndab wanañ sëñ bi daaw daawul lu mu laal ndab li ñetti yoon noonu mu daa def puus ko maam Cheikh Rafal mu lekk ko ba mel ni kuy raxas ndab li ñëdd ko taaj ndab li ni ko ah sëñ Bamba reggoon nan saw des la kenn xamul nu mu koy def kooku dindi nawloon teg sëñ bi def nawle borom Touba maam Cheikh Rufaala ko dindi nee jant bi so sëñ bi tàbbi ci biir kees gi ni ko bismillah mu ni ko bokk ak yow néeg bu buñ fanaan mel na ci ñun ni suñu borom ñëwoon fi ñu bokk ak moom néeg buñ fanaan bàyyi nu ci sedd bi bu taal bi naree giim dinañ dugg xam ko dellu si waat ci sedd bi daal di boofu ci biti di xool taal bi saa bu taal bi naree giim maam Serafal defaraat ko yaa ñi yaañ génnaat ci biti fanaan ci lay bi keroog bu bët sété la kenn gëj mujjë abbu daay sëñ bamba bind ci ñi daan abbu daay sëriñ bi diko bind kérok la Cheikh Rofal décrété ni da xam ji kenn dootu ci bind kenn dootu ko fi né néegam bii kenn dootu fi dugg ci wowu la dootul ciagé ni ku jog tàmbi ci légui ab jotaayam it su yebo ngeen xam ni kenn dootu ci tok talal say tank benn loxot kenn dootu ko ko jox ku ko jox loxo dang ko war mal té ñaari loxo nga fay jox décret ba tàmbali affaire yi tàmbalee metti Mbàkke Kajoor tàmbalee metti maam Cheikh Rafaal ak ñoom nee na sëñ Baara Jenn ah fekkoon naa leen sax yónni yi leen suñ Bamba di yónni tax am ci ñooñ dañuy dem asamaan mu jant soo dañuy dem asamaan yónni yi leen suñ Bamba di yónni wàcc na ci ñoom barke bopp def na leen ay wëllu yu ba bu jant soo ñu dem asamaan daane ko waaye bi ma teree am ci ñu nangu am ci ñu gàntu ñi gàntu buñ ñëwee bëgg sàllalu sëriñ bi baa ñu jaar ko foo xam ni tegg nu wut ci man dama leen bitti loxo ku ma ci bitti loxo boo daanoo jóg danga ma naan ah Ibrahima Fall man xamoo ma nee bu jan sooy nga départ jëm juróom-ñaareelu ngir fexee li ma ma nekk la ci bu njëkk bi boo ñëwee ma duma la duma yu raw yi ma la duma woon suuf nee bu ñu xëyee lu ma waxati nga ne def leen ko kii du nit nee maa ñoom ci noonu ci Mbàkke Kajoor mu redressé kër gi ba mu mokk rumbux maanaam ni sax sëñ bi daana wax sëñ Daaru Asan yaay xam nga sëñ Daaru la bokkal mooy mbokkam sëñ Daaru Asan ku mag la woon ca mag ña la woon mooy juróom-benneelu ku jébbalu ci borom tubaab bi sëñ bi wootee yoon sëñ Tuubaa duggaloo na ko xalwatu fii ci Tuubaa ñeent fukki guddi ci jàkk ci baraagam boobu foofu sëñ Bakke Madina defaraat mu nekk ci nekk sëñ bi ci baraag bi sëñ bi na ci biti bu waxtu julli jotee sëñ Touba ne ko mu rasan bismillah 40 jours muy jiite borom Touba moo ko mas a te booba ñëw nañ Touba ba noppi te Mbàkke Kajoor bi ñu fa jógee ñëw Mbàkke Bawal la maam Cheikh Rafal waxoon ni kenn dootu ko jiite julli moom problème bu Mbàkke Bawal li ko gënoon a bokkoon na ci kenn du jiite julli sëriñ bi parce que sëñ bi ñam fa fekk ay bokk lanu ba noppi jàpp nañ ni kenn rawule ba ku ne war naa jiite ka ca des maam serafal xamal leen ni kii moom kenn du taxaw ci kanamam di julli looloo indi mbàkke bawal ya fa ne jafe-jafe ya fa am ba bis wax nañ ni moom moo ñëw waxtaan ak sëñ bi ci ni ko suuf su teeye ngi fii nee na boo fa sañcee loo amati dana toog ba Cheikh Mouhamadul Kabir dem na Mouhamadul Yaddaali dem maanaam ni néeg bañ fa njëkk def foofa ca Darou Salaam mooy fii maam Cheikh Anta tëdd tey moo nekkoon néegu borom Touba bi njëkk am nga xam ni moo ko moom néegu boppam la moom borom Touba nga xam ni moo ko defar moo ñi mu àndal moom ko néeg bi borom Touba njëkk a moom Darou Salaam la ko amee mooy fi maam Cheikh tëdd wax nañ ni bi ñuy aj bi ñuy aj puj bi xaddub néeg bi sëñ bi am na côté bu mu jàpp ndax mbooloo mu néew maam Serapha la ko wax ni foofu boo fa sancee suuf sa nee na loo amati dana toog ba mu fa sañcee Mouhamadul Moustapha la njëkk am bi muy am Mouhamadul mustafaa fekk na mu gis pàkkub Touba réer ci àll bi réer ci àllub Touba bi nekk tuubaa waaye xamuñu fu mu nekk parce que retrouvé guñ ko moom réer na ma nga Touba ma nga fii ñu ko denc tey moom ci mbubbam moomu waaye kenn xamul fu mu ne Cheikh Moustapha feeñ ba bis bi dellusi ñu jox ko aw tur rëbb bu nuy wax buubu ja moo ko fa fekk wax ko li xew ginnaawam ci Darou Salaam mu del si jox seex Cheikh Mouhamadou mustafaa turu Mouhamadul Moustapha delluwaat ba tàmbalee sañ ci dëkk bi juróom benn weer après alaaj Fallu Mbakke war a feeñ mu yónniwaat buubu ja moomu mu woli ko soxna wa bi sëñ fallu feeñee mu ñun mu ni lu mu guddi guddi na fanaan daru ñu indi sëñ fallu mbàkke daru salaam gannaaw feeñu sëñ fallu googu nag ci la denc bi sax ci la ci la sanc boobu mu sanc sax ba mu del si daru salaam woolu maam Cheikh Anta mu ñëw mu ni ko damaa bëgg ñi jébbalu te toog te ne ci kër gi nga wàññil ma leen ba xam ñaata la maam Cheikh Anta dugg wàññi dongo yi nga xam ne ñoo dëkk ci kër gi ñuy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ba ba maam Cheikh Anta fukki at ak juróom-ñett ñu juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ñëw wax suñ tubaa ni ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent de ñoo fi ne mu ni ko boo ci bokkee muy téeméer mu ni ko waaw mu ni ko may naa la leen may naa la kër gi Cheikh daal koy takkal ndomb ak tànk gi tudd seex seexal tuddul seexal maam seexante la ko borom tubaa defal kum ko defalate ñu ni defaloon defal nan ko lan defaloon seex sëñ Gawane njëkk seex ci yoonu murit maam seexante la borom tubaa takkal ndombal tànk lii di ngërëmu yàlla bolel ko ci lumu waxale am lum ko jende mom seigne gawan barke bi waru ko te at yi wul ku seigne touba geureuma ci ñu ni defal nako lamu defalon cheikh dem ba yag baat bi sonal leen ñuy wax ni cheikhal nan ko cheikhal turu mam cheikh antala defal nan ko lan defalon cheikh lañ dem ba lott ci waxin bi kuñ ko defalati ñu ni seexal na loolu suñ gawan nako mom tur woowu ci diante ndjay señ bi ci la sax touba may ko 99 personnes yobale 16 personnes xam nga ni koku wutul won mbolo way señ mag bi wutul won mbolo mbolo sonal ko won propagande nak dajal nit ñi sonal ko won señ touba bu doon propagande day télé bind khatimatul munajat bil khatti li ko yàlla may lépp mu def ko ci xaatimatul munaajaati bàyyi bay dem bind ko war na noo xam ni propagandul bëggul mbooloo wutu ko li ko yàlla defal te wax ko ci xaatimatul munaajaat kataba laaw yooyu nekk ci sëñ bi ku ko yàlla defal te nga bëgg mbooloo danga koy wax ña nga koy wax ñu daw topp la waaye bàyyi bay dem bind ko bàyyi ko fi kooku propagandul wutul mbooloo bi mu mayee maam Seex Anta 99 16 la yóbbaale sanc ñeenti daara biir Touba daara ju nekk am ñeent bii sëñ Mandoumbe bi Cheikh ibrahim Fall bi sëñ abdourahman Lo bii sëñ Massamba Diop sam ñan ñu leen benn bi Cheikh ibrahim sar ndjay waye ñent daara la rek 16 personnes la ñu fa nekké ba 91 sëñ Baara Mbacke wara feñ ci la mam Cheikh ibrahim Fall mi xey bis mu niis mu ne ah doom tey du naaj de tay du naaj sëñ Bamba day am gante mo tek teg te bi ci kaw jant bi bis boobu la sëñ Baara Mbacke way juru Cheikh Seydil Mokhtar feeñ sëñ Touba leen ñoom ñeenti jëwriñ yi ne leen li ngeen fi doon sàkku gan gi ëndaale na ko yàlla gërëm na leen. ci la demee ndar ñaareelu dem ndaram googu ngay dégg ci la demee ndar dem ba bu maam Cheikh Rafal xëyoon grève ni sama bitig yi du ñu jaay ndar du ñu lekk keroog dëkk bi bu fekkoon bitig yi 100 la. 99 yi Cheikh Ibra Fall la ko moom muy jënd kër di ko def titre foncier ànd ak niveau intellectuel boo xamante se ni kenn mus koo xalaat ci nit moo tax Cheikh Ibra Fall ah, ñiy xalaat dof dëgg la suñ Bamba dañoo war a dof ci moom waaye Cheikh Ibra Fall la gën a nite ci nit ñi mooy diplomate bi gën a màgg ci diplomate yi moo gën a nite ci nit ñi bu ma saanee jënd kër tey jii sax bari na ku dëkk ci kër bàyyi la tey jii mu gën a développé mais Cheikh Ibra Fall bu masaana jënd kër day fexe ba mu doon titre foncier nga xam ne bu état demoon ba soxla ko dala naan loo ma koy jaayee kër gu mu mës a am titre foncier la ba lambinaas gi mu jëndoon fii ci ndakaaru sëñ tubaa war fee wàcc bi mu jógee ci géej gi titre foncier la ak niveau intellectuel boobu nekk ci maam Cheikh Ibra Fall yépp terewul mu wan ak woyof wan ak mokk jàngal nit ñi nan la ñuy toppee borom Touba ngir jariñ loolu suñ tubaab moo ko wax kenn ci mag ñi moo waxoon moo waxoon ci sëñ Fallu Mbàkke mi wax ne ñi nga xam ne ay bokk lañ moo ci raw ñi nga xam ne duñuy bokk Isaa jenn ci raw am ko ni ko Mbàkke Seex Ibra nag mu ne ko jekkiwaat leen ma wax leen lu ma booleeg moom daal ni seen borom ca azal moo ma ne ahmadu ma wuyu mu ne ma demal wooteel ma mu jug jamono te wooteel ma nii nee na may dox ba ne dégg mu ne ko ibrahima demal wanal ma leen nun koy topp daal ni lienu boole en 1900 bi mu tuddee Seex Sërif Asan Fall wax na lu mel noonu ñu ko tuddé ba nopi dani Assane Fall ji de mako ci def waye serif ji ci la ko fekk aljana lañ ko jëlé mak Bamba Dari wax ni yalla yabal sëñ Bamba ci yeen yabal ma ngir ma won leen nu ngeen koy top sëñ Bamba jiitu ma di dox ba tabbi aljana ma top ko ñu fekk cheikh serif mi mu tudd ci nay rafet lol sëñ Bamba nuyu ko jall ma nuyu ko dab sëñ Bamba ni ko ki da rafet nan ko yobale ci bi mu ne ma delu ko nang ko joge won ma xan ko bu ne bëreet nga wan ko nu dem nee na ma delu Cheikh Serif nama ko joge won mu xan ko ma wan ko asan Fall gi la ci def de way Serif ci la ko fek motax Cheikh Serif asan julit la won lu ma sa bëgg def ko amna ko ma sa wax adom ah, li ni wax sirat de diw mu ne ko Fall mu ne ko li ni wax sirat de duma ni kenn mako mom man asan Fall waye bala kenn ba pelu da nga ma xam suuf si la Sylla lu moo ko meññi mook moo Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall mu njëkk a wut Cheikh Ibra Fall Cheikh mi nga xam ni doyoon na ci jàngale maam Cheikh Ibra Fall Cheikh Moustapha tubaab bi bi mu joxee kayitu juma jumaa ji ba pare ñu d'accord ci Cheikh Moustapha Mbacké liggéey jumaa ji ñu teg ci jumaa ji sart yoo xam ni kenn mënu koo jëf rawatina ngasum raay bi Cheikh Moustapha Fall mu maam Cheikh moom moo ànd ak Cheikh Moustapha Mbacké mook sëñ ma Massamba Issa Dieye bi ko tubaab bi ne ñii liggéey manœuvre yi war a liggéey raay bi saa yu ngoon jotee da nga leen di fay Cheikh Moustapha bëgg a jaaxle Cheikh Massamba Issa Dieye ma Massamba Mbacke rakki borom tubaab jooju nga xam ne rakka ma dooma ma taalubee ma moo yóotu Cheikh Moustapha mu ñëw mu ni ko murit yi bëgguñu ak fay neel waaw saa boo leen fayee bu guddee dinañ ma ko indil bu subaa nga fayewaat leen neel d'accord booba tubaab bi nangu na juwaa ji waaye condition yi la bëgg a bañ condition yi lay metti mu tra mu mu mu tënk fan yi mu war a tàllal raay bi diggante Touba ak Njaareem 45 kilomètres yooyu mu teunk ko Cheikh Moustapha bëgg arrière pensée ci lolu xalat nan lañ ko wara defé nu gaaw Cheikh Moustapha Fall yotu ko seug niko neko nee ko waaw foo jaaral sa tank bi bo xeye dana fa teural ak weñ yek tuba ma yoon wi mosuñoo sakku ci kenn dara yoon wi luñu mësa bëgg def ñoko def ci seen propre argent juma ji fi ñëk am mooy jumaay njaareem

murid yi liggéey jumaa ji jébbal borom tubaa caabi ji mu jox ko Cheikh Ibra yi mu julli ko sëñ tubaa dugg na ci jumaa ji ñaari yoon waaw waaw tur wa dootu fay fu ñu tuddee jumaa ci yoonu murid turu sëñ Isaa ñëw moo njëkk a liggéeyal borom tubaa jumaa Ibra moomu ak loolu yépp bu àndee doon benn say ñu takk ko moom maam see Ibra bu ko borom tubaa woowee mu gëlëm waa kooku ku mel noonu ci yàlla ku koy woo muy gëlëm kan nga ku yegg fi Cheikh Ibra yeggoon ci yàlla ki koy woo muy gëlëm kan la te moo jàngal gaa yi taalibe gi de mas nay defar ay gàtt yu jëm ci sëriñ bi maam ngu ndañang bokk ca ña koy fees li muy fees ba tolloog yére biir yi xelam wëlbatiku pour nga xool ni Cheikh Ibra waggaree boromam xel mi wëlbatiku mu bàyyi gàtt bi serati na le sëñ Ngunda Ñang Saaliwu Ñang la tudd sëñ Mafal Ñang moo ko jur suñ Mafal Ñang ca mag ña toppe woon maam Cheikh Ibra Fall tasineer la bokk sëñ Ngunda Ñang moomu am na rakkam ju ñuy wax maam Ami Ñang maam Ami Ñang moom la jox Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall moo am ci sëñ Muudu Aminta maam Ami Ñang moomu moo mel ñi soxna maam Say Fall ñu jox ko alaaj Fallu Mbàkke moo am ci sëñ suñu xalifa bii sëñ ngunda moomu moo sareti nele rek maam Cheikh Fall nga koy gis ci baristra ñu defar ñam wi ba yóbbu ko yóbbul ko ku tedd ki maam Cheikh Ibra toog ay fan xëy gën rek toog ci chaise roulante bi noonu mu daa def andi waa ana ngunda wax nañ sëñ ngunda dawee fa mu nekk ñëw sukk ci kanam mu ni ko ngunda mu ni faal mu ni ko toogal fi sama kanam toogi ni murit maam Ngounda Ndiaye nee na ma teg samay tànk toog ci kawam ma lem samay tànk toog ci kaw tànk yi di jekkal mu ne ma ni koy julli di tooge ñun Cheikh Ibrahima sama kanam toogi nu murit nee ma lem samay tànk ci waaju mu ne ma ni koy julli di tooge na ma sukk ci sama kaw tànk yi loxo bu nekk ma teg ko ci benn bët woom mu ne ma hakaza Ngounda nii la murit di tooge nee na ma ni tekk déglu ko mu ne ma Ngounda ma ni ko faal mu woo ma ñetti yoon ma ni ko faal mu ne ma ah Ngounda soo dematee ba bëgg a tufli ba nga serati fa nga xool ba gisoo fa kenn nga bëgg faa serati sa borom a fa nekk yàllaa fa ne ngunda su la serati dikkalatee di nga jàngale gi moo dàq yare ci àdduna bu doon am saaliw sàmb la bi nga ko defee rek naan eh, nangam nangam nangam direct waaye da ko bàyyi bu mu ami fan mu indi ko waxee moom noonu ku ko ci déggaale rek jël sa ak koo mën a doon ba addunay tukki suñ gu nañag nee na mu ni ma boo dematee ba bëgg a serati fa nga xool ba gisoo fa kenn sa borom a fa nekk yàlla fa nekk daal di ko te yàlla ku ko xañu teggin doo ko am daal di ko te da ngeen ñoo jox suñ seen bopp ngir ñu yeggale leen ci moom te ku ko xañu teggin doo ko am Sëñ Amadou Bamba am na nit ku weex ku ma sa ñëw ci moom xaxtandiku dikkal ko mu xaxtandiku sëñ bi jilleeg moom dox dox dox dox dox ba cappnu mu toog nuy waxtaan ba mu yàgg sëñ bi dem ba waxtaan wi war a jeex mu bëgg koo wan ni nee dee su ko def sëñ bi jóg dem ba ca catal sàkket wax def nii ba mu xóot mu mel ni kuy xaxtandiku yàbbi ko fa suul ko waa ji xam ni moom daa war a suuli lee mu dem jël suul waaw moom moo ñu waxoon falaa taqul li ahadin kazabta aw xulta gayra xaqin aw axtata Sëñ tubaa nee na falaa taqul li ahadin kazabta bul ni kenn da ngay kàcc aw xulta gayra xaqin mbaa wax nga lu dul dëgg Sëñ tubaa nee na bu ko wax kenn aw axtata juum nga sax Sëñ tubaa nee na bu ko wax kenn kon ndeke mu nit juumee ci fee lañ koy jubbanti waaye du làmmiñ da ngay def mu jubante ci ay fe lañ koy jubante yarin woowu nak keur borom tuba la am dinaa koy faral di wax ponk l'islam yi ñuy wax souvent ma dina ko wax ci may waxtan ponk l'islam moy basi moy tibbi l'islam moy bas bi Cheikh Fall ca bas ba la ne motax gisaluñ ko won ponk yi sëñ Modou Moustapha moo wax ne lislaam mooy ak taalube dañuy lenn lu am ñaari tur moo ko wax sëñ Ahmadou Lamine Diop Dagana ci dara Darou Khoudoss sëñ Ahmadou jóob kes yone ko ci l'islam ak ak taalube sëñ Modou mustafaa mi njëkk a wutu borom Touba mu ni ko Ahmadou Lamine lislaam ak taalube dañuy lenn lu am ñaari tur maanaam mënuma leen a la sëñ Modou Moustapha wax te kooku lu mu mënta séparer kenn mënu koo séparer kon loolaay maam Cheikh Ibra Fall tibb yi li muy baax baax niñ ko tege buñ ci lalul woon baas bi du nu keral du nu du nu teree laal lay bi kon mooy ponk yi waaye bu baas bi ñëwee lay door a mat Cheikh Ibra Fall ca loola moo tax gisuñ ko ci ponk yi bu fekkee azaka la ku am lu ma nisaab mooy mooy yor asaka te Cheikh Ibra saa bu juróom fukki junni masaana fa yegg si këram juróom-ñeent da koy yónnee borom tubaa téye benn bi suñ demee ba fajar di xar te ndawul borom tubaa ñëwul mu joxe benn bi ñu yóbbu ko moo tax Baye Fall yi tàmm añ takkusaan ba nëgë nii loolu xew ci kër Baye Fall yi ca maam Cheikh Ibra Fall la xewee bu fukki junni yegsee ci kër gi mbaa mu ne fi bu jant sowee day yónnee borom tubaa juróom-ñeenti junni yi téye benn bi bu fajar jotee te borom tubaa yónneewul mu yónnee junni bi mu dem nee na ndawul borom tubaa la kenn dul wax joxe naa dara da ngay téye kay bu yegg see nga jox ko moo tax may garder benn bi ndax xëy na sama ndaw li ma jox juróom-ñeenti junni yi balaa yegg borom tubaa yónni te ki mu yónni du ko gàntu moo tax may téye benn bi di ko xaar système boobu la doon jëflanteeg borom Touba pour nga xam ak taalube mëst nangoo am dara koku koku koku asaka dina ko war ah asaka du war ko amut dara Cheikh Ibra Fall amul dara lu ma sa ñew rek mu yónnee ko borom Tuuba mom xaarul dajal lu mat li sax mo tax amulon dara koku asaka waru ko gaay yi ñu wax ak mom ci jullit amna lu mu leen nu waxtaan ak ñom waxtaan nañ ba wax ak mom ci xam-xam ba wax ko ni ñaka julli gi dal lu ñu yem la mu leen adom ah, ana luy julli ñu ko julli fatali ko yalla sa borom a la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata li zikri mu ya wax ngeen julle fatali ko yalla ñu waaw fal mu he bu de moy fatali ko yalla dañ la wara ray adi wax Adam, ah, ana ko julli suba bëgg fàtte yalla ba tisbar fatu ci yor yor bi bo demé loy lay yalla dal ne adam ah, doom ku ko la bañ ku ko fàttewul do def lu bon ba ma wax yàllaa ngi fépp danaan laa jum nga de yàlla xajul fenn fépp ne ci yàlla ane ah boo xamee ni yaa ngi ci biiram de xanaa doo def lu ko naqari noonu la maam Cheikh Fall daa yaree noonu la daan jàngalee mas naa tudd doom ci dëkk bokk yoo waxante am ku sarxolle mu ne a ah, doom kooku xamadina de ab dëj nes ci sarxolle mu ne ah doom kooku xamadina ab dëj nes ci sarxolle ñu ne ko faal daa mel ni mu tudd la mu ne da ngeen a juum doom tudd dum tudd ab la day door a tàmbali jàkka yi kat bu ñu doon am de liir bu génnee dañuy noddu li xam aj kàbbar bi mooy premier sorteem ci laxasaay lay génn tamit dernière sorteem ci laxasaay lay génn am de kañ wóolu bu ñëwee dañuy day kàbbar direct noddoon nañ li xam barki démb Cheikh Rofal nee na tudd du tudd ab dëj la day door a tàmbali yàllaa ko njëkk a wax sax yàllaa wax ci alxuraan ni suma sabila yasarahu قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم سبيل يسره ثم اماته فاخبره يالا بيم ما يومبال مو غنا جامونو ريك ماي راي لا سي تك ثم سبيل يسره ثم اماته ما اذا ساء انزل كلا لما يقضي ما امر اي بامي وور سما ديغالي فوم نيوون موم فلينظر الانسان وبغي يالا جومال لا خولال سي لي غاي ليك الى طعامه inna nun yàlla sabatnal ma asaban ñoo wacce ndox mu tabbi ci suuf ci sey suma ma arda ma xar suuf ci saqan ay xar-xar meññent mi génn fa anbat naa fiha nak ma meññal mbooleem li ngeen di lek habban wa ban wa ghadban wa zaytunan wa naqlan wa ghadai qawl ban wa fakhatan wa habban yóbbalu tudd mataan lakum wa li ay fa yàlla nee na ay bis bi may dajak yéen isa jaati saaxatu yow ma bis boobu de yafirul mar'u nit ki dina dawanteeg min axiihi ci frère am wa ummihi ak ndeyam wa abihi ak baayam wa saahibatihi ak i soxnaam li kulli mri'in minhum yawma idin sa'nun yunihi yàlla nee na kenn ku ne ci ñoom bu keroogee dañu am mbir mu ko dey wujuhun yawma izin musfiratun amna kanam yo xamne dai day leer belli dahikatun borom kanam ya dire. ree mustabsira boo leen xamee boo leen xoolee xam ni ñee wa wujuhun amna yenen kanam alayha khabara kaw kanam ga day pousser tarhaquha qatara kanam yey feñal njaqare ñoño ñoy ñan yalla muni ula ulaika kafaratul fajara moy ña di won te don ay bandi fu jaar fajara waye loolu bari la ñukoy nyep firi nak di ci duggal ñëpp ba wax ni mën ta nek ndax baat yoy waye yalla mo wax safaa ci alquran ba aya bi gëna a siiw baatu ram aya bi gëna a ci alquran amna? baatu ram moy ayatul kursi yalla ci wax man zal ladhi yadfau indahu ila bi iznihi kon ramu amna na bi sallallahu alaihi wasallam neena alquran dina ram borom xam-xam yi dina ram kon ramm am na ku ko mënul rek neel mënuma ko ku ko assuré wul neel assuré wu ko waaye kenn du ram moom déedéet Seydina Muhammad bu yowmal xiyaamee yàlla bu laajee safaatul kubra ram mu màgg ma bu yegsee Muhammadu Rasulullahi la koy jox kon mu dina am naa Ousmane ibnu Xafaan yonent bi fanaanal na ko ci jàkka di ko ñaanal ngërëmu yàlla ba fajar baata nabiyu ila fajrin yarumu lahu ridan min allahi za tafdilu kubbaaru waaye ba yonent bi génnee ci bët set ga dane bu yow mal xiyaamee soixante-dix mille personnes juróom-ñaar fukki junniy nit ñoo xam ne sawara yaay na leen bañ jiital leen jëme fa yow Ousmane di nga leen dëpp ci sa daraja kon kay ramu am na wa fii xaala nabi Ousmane yasfa'u la wax dina ramu safa yasfa'u fii sab'ina alfan wa kullun haqqahu naaru kon ramu am na boo ko mënul rek wala doo ko def bu boobaa neel du ma ko def Cheikh Ibra Fall ba ku góorug ceddo ga ne dama di ceddo ma bëgg yowmal xiyaam nga bañ maa fàtte maam Cheikh Rafal da koy xool ba mu yàgg ni ko yéen ceddo yi de ci ak tooñ rek ngeen ne limal ko yi ñuy def yépp ba mu yàgg mu ne ko faal tooñ googu ñu nekk moo tax ma bëgg bu yomal xiyaamee nga bañ ma fàtte wax nañu maam Cheikh Rafal aj asamaan bët yi xool asamaan si lu yàgg wàcce gis ba ni ko ndokk bi nga ñëwee ci man Ibrahima Fall mi jubug yàlla adoom ah, ndax xam nga ni yéen ceddo yi yow mal xiyaam dimbali leen fa dëgg du ko man doolee koy man ku tooñ bu ñu la attee ci ko yow mal xiyaam leen fa dëgg ko man doolee koy man te maa ko fa am daan noo sant mu ni ko Fall mu ni jërëjëf sëñ Bamba bu yow mal xiyaamee danaa ramu sant Fall ba nu jeex ma ramu ñu sant Faam ba fa mënul dara neen mënuma fa dara rek waaye kenn mënu fa dara moom du ay wax bu dee taalibe borom Touba bee fay man dara nag borom Touba du safa wax ma ni bu dee taalibe borom Touba bi moo fay man dara borom Touba du safa wax Sëñ Fallu nag xam le mbiram jafewul sëriñ bee ko meññ moo ko dalal alxuraan baasin bayaasin mook seex muhammadu mustafa al karim juróom benn weer ak fukki fan ak juróom ñaar lanu magante sëñ moodu mustafa man ca tamxarit xarit wa yawma asura la sëñ moodu mustafa feeñ ca rajab wa di ndey koor ñaar fuk ak guddik ñaar fuk ak juroom ñaar la sëñ Fallu mbacke feñ di aljuma te nga kat ba wax ni tay ke zu rajab la takku jundul ilahi dar ko mbeur may bàkku bisub ak dam dani bu ko ken nampal fi jant bi so buñ ko jox tokantal dafa woor bi ñëwee bisub wax nan ni rasulullahi ñew na fi ngir juddoom bi dunallahi inniya abdullahi mom la Isa di miim njuréel ga raw na buusaa buur ba defoon ba isaa mën a wax ci biir muur moo def keroog sëriñ fallu mën a woor amul lor bi nga taway naa maa nastaaxu salla alayka akramul xallaaxu ba bis ba dellusee sëñ Tuubaa tudde ko Mouhamadou Fadilu Cheikh Ibra Fall ni léer bi dina toog bay àtte leeru ngëneel ga woon ca soxna jaara fekk na ca liir ba mësula dem ci daara foofe la jànge alxuraan ba mokkal ci diir bu néew néew la daal di àggal tàmbalee baqara jëm si saaru naasi yóbbaale ab tareem amul waswaasis sëñ ndaama jàngal Cheikh du Fadal lu mu wax mu mokkal moo raw ci réew mi alaaj fa lu bakke téereb yàlla bi nga xam ni moo gën lu dul moom boroom xam-xam yi wala boroom téere tafsir yi sax am na ci ñu wax ni melow yàlla la moom alxuraan dootu waxi yàlla melaw yàlla la moo gën ba gën rasulullah moom téere bi alaaji fallu rekk a ci am ñeent ba juróom ba juróom benn mooy kañ nga gane jamono sëñ falu ni la seetil alxuraan fu sa gane jamono siiwee mu ni seetil alxuraan ban bis la mu ni seetil alxuraan foo dëkk mu ni seetil alxuraan noo tudd muni setul alquran loy liggey muni setul alquran seetul Fallu Mbàkke rek am loolu kagn nga gën jamono muni jàngal israil ba nga jàng nañ mi yalla ko netti subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa allazi barakna xawlahu li yuriyahu min ayatina innahu huwa samiu albasir ca naj mi wa huwa bil ufuqil a'la summa danaa fatadalla fa xaaza ma xaaza min sirrin yuqassu bihi wa xaddana فتدلى بالمناجاة وأمهم ليلة الإسراء وجاوزهم حتى دنا بارتقاء من سماء لسماء ثم دنا فتدلى بغانا قاب قوسين أو أدنى فوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هاد هذا فخر من هنا أسرى بالجسم جهرة بالافتراء أكرم بربي أسرى به بليلا لقرب مع البراي هاد باتا يسري من بعد الظهر مديما بسري في الانبياء سر الأميني مع الأميني فوق للك للاتفياء منها لعمري اسراء الاله به بروحي والجسم ليلا لسماوات فبات يسري وجبريل سرى معه فوق البراخ الى اقصى النهايات والقديم الذي asral ilahu bihi ila samawati laylan jaliyan zulama xat baata yasri wa jibrilu salaamahu fawqal buraaxi lima anil waran bahama sallallahu alayhi wa sallam fa abba fii layli xabla alfajri yaalamu ma ñibbisi na balaa fajar na xat abba layla summa li daarihim sana sallallahu alayhi wa sallam fu sa gën a ñëwoon si yow ni jàngale alquran wallahu yadoo ila daari salaam بان بسلا موني جانغال القران يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فو دك جانغال القران الذين امنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن المآب نو تدو ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لوي ليغي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الله جفل مبكي moo fas yéene méngoo faj aajooy jaam ñi yàlla jël li faj aajooy jaam ñi jox ko ko moom sëñ Fallu ni la fi demee waaw sëñ Fallu moom doomu aadama xamu ci woon lu dul teral ba yàlla ne wala xadd karam naa ba nii aadam la sëñ lu jël teral nit def slogan ni yàlla man duma la contraire nit teral rek laa ci xam fi mu toll li coow li bari bari mosoo leen a dégg ku sëñ Fallu toroxal moom nee nit waxul juif waxul chrétien waxul muslim bi sëñ Fallou nee na nit xawma ci lu dul teral parce que yàlla wax ni teral naa ko ku jéem a toroxal nit contraire yàlla ngay def te man duma contraire yàlla man opposé wu ma yàlla man bi yàlla nee daa teral rek laa saxoo teralaat mas naa denk nit ay toolam kooka baax ba cay dagg di maye mas naa denk nit ay toolam kooka baax bay dagg ci tool yi mayee ñu ko koy clamé di ko ko réclamé ba réclamé bi sàppi ko mu wo ñepp dongo yépp dajale loo leen ca pencum tool yooya ñu daje fa biñ dajé ba señ Fallu ñew mu wolo kim ni ana diw ñepp di mat. ñi don clamé yépp di mat. yaakaar ni tay la affaire bi jeex ñuy mat seeni mat mu ne ana diw togal ni koku tok mu ne ko yow kat dama la dama dama la jëm leen ñu ne ñu ne ni ñi ni bul mat bul sa naa la tere nga macc sa baaraam yi dama laa jàmb loolee tere nga macc loo sa ba nga macc sa baaraam yi naa la tere macc sa baaraam tere nga macc sa baaraam yi baax ñi réclamé woon yaakaaroon na ni keroog musibaay xew moom xam ko yow dama laa jàmb looleem maa la jàmb looleem ñii ni naa la tere nga macc sa baaraam yi waaw ku jàmb lem nag boo noppee sañ ngaa macc say baaraam waaye kookoy ko waa ji ñaanee mbaam mu ni waa ji joxal ma ko mbaam mi waa ji xool ko mu suur mu dëpp ni ko mbaam ma daa far yi ko ubbil buntu sakket bii ma mu ubbi ko fasu naaru góor wu weex dox mu ni ko joxal ma ko fas wi mu wër fas wi dem ñëw ni ko mbaam ma ñëw na mu ni ko demal indi ko mu ni ko booleel fas wi mbaam mi joxal ma ko nanu jàng ci loolu yéene lu baax dégg ngeen sëñ Fallu ay mbiram dañ ciy jànge dañ ciy jànge bu baax a baax a baax lu jar lu jar di xalaat la di jéem a xañ nit ki wërsëgam mu far am lu double loola wala lu ko triple yàlla pare na yàlla noppi na lu mu jox waay balaa juddu la ko ko waajal bu kenn wax lu tax diw am nangam yéene ko ko ñaanal ko mu ràppal kook jàmm te dund ci bu lu mu am la ba nopi nga ñaan ko yalla yalla may la ko yalla day may rek te lu dul dem tok ci sisam bi di yalla man nako maye lu dul dem doon yalla yalla man nako koo xana gis wo len li borom tuba ñaan yalla ko ko gis sañ nga ñaan señ tuba di mbind di bind bam yag mu ni ko na tolloog yonenti yi daraja ma ngi lay ñaan mu tolloog yonenti daraja ij'al kitabati ka kulli mursali lu xana fitu ñaan ko sax yombut nak xawma xel daj ko waaye fitu ñaan ko sax yombut léeg-léeg ma laaj ko kat léeg ma ne ñi ko jiitu woon dañoo amul woon xelum ñaan li muy ñaan wala dañ koo seen xel a ko dajul wala dañoo amul woon fit bi ah ijaal kitabatiya min zal yow mi fawqa salaatin xubilat wasaw mi ijaal midaadi kadimaahi suwada sama sama daaj yi na tolloog yi ñi doon sëxit ña doon xare xeeti ñaan yooyu ci moom lañ ko mës a déggee kon kay ku ne sañ ngaa ñaan li nga bëgg waaye lu waaye am yéene ko ko ñoo ngi leen di jéggalu di ñaan yàlla yàlla na nu fi daja déwén bis bi yàlla nañ ko def at yu baree bari bu mujj ñëw yàlla na gën a dëppoo ngërëmul borom Touba ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall borom ngërëm la boo bëggee jot bépp vidéo bu jóge fii ci chaîne chaîne Nour Darayni TV da ngay fii ñu bind s'abonner boo noppee nga daal di bës cloche bi. Nour Darayni TV le reflet des valeurs et culture di mouridisme.